jërë jëf mbokk yi yéen ñi nga xamante ni yéen a baaxoo di ñu topp euh, tey nag ñu ngi fi nga xamante ni mooy centre euh, cité gendarmerie 2 di fi nga xamante ni nag fii la kii nga xamante ni mooy madame le ministre Aminata Assome Diatta euh, jiite liste bu coalition Benno Bokk Yaakaar war a voté moom sax mi ngi nii daanaka di yëg si rek ngeen topp ñu ñu daal di ànd ak moom ba mu daal di dem voté rek su ko defee ñu soog dëkk suñu micro xam ana lan mooy ay sentiment yu njëkk ak itam lan lay xaar ci li nga xamante ni moo nar a tukkee ci yilay vote. bisu tey bu njëkk bi ci vote bi. ana di ko rafetlu di wax ni fii de ci cité gendarmerie gis nañ ni nit ñaa ngi génn euh, bu ñu xoolee heure bi ak euh, si centre bi nga xamante ne ñaari bureau la am 800 électeurs ñoo ci nekk waaye gis nañ ni euh, matul 400 ñi nga xamante ne jot nañoo jël seen pièce d'identité. kon bu ñu fi ñëwee fekk fi mbooloo mi dañuy am yaakaar ni fii ak journée bi ñëpp ñi nga xamante ne jot nañoo retiré seen carte te mën dinañ voté incha allah ah, di ñaan aussi vote boobu mu nekk loo xamante da nekk favorable coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ne. madame madame la ministre euh, tey ban appel à la ngay def. li ñuy wax rek mooy na ñëpp dal quel que soit résultat résultat bi Sénégal lay gagné commune Kër Massar Nord mooy gagné kon. nañu respecté li nga xamante ni moom mooy génn ci urne candidat bu ci nekk def nga yow li nga mën waaye nag ndam moom yàlla rek a koy joxe kon ki yàlla tudd rek jox ko ndam ñun ñëpp nañu nangu rek jàppale kooku mu liggéey commune bi ndax loolu rek a am solo. si vous plaît madame yaa ngi wax ko nangoo est-ce que pensé nga am ndam fi nga xamante ni moo di centre de vote bi nga voté actuellement. incha allah excusez-moi.